Following recently, of course, the recent reported cement shortage in the Gambia, the general manager of Jowel company, Mohamed Hydra, has dispelled such claims, saying their company has the capacity to produce 100,000 bags of cement a day. Now, Hydra made the pronouncement on Monday while speaking to journalists at the company's headquarters in Brikama, aimed to bring more or further clarity to the rumored cement shortage in the country. Our reporter Khadija Diallo tells us more of that in this report. The Gambia government had blamed by the Cement Importers Association for allegedly siding the local cement producer companies, which according to them could instigate a shortage of cement and eventually increase in price. However, the general manager of Jah Oil Company, one of the leading cement producers in the country, dismissed these claims, emphasizing the factory's substantial capacity with the ability to produce over 100,000 bags of cement daily. He said the factory can swiftly meet market needs, filling the demand in just three days. Haidar Ford explains how Jah Oil Company navigate its way into cement business industry and the increasing for demand of cement in the country. By then, you have only Gassim here as a company. And then when the demand for cement grew, and then demands were skyrocketing, he decided to also venture into that. But before venturing into that, he also studied and knew that actually cement, the most, is like a commodity, an essential commodity. So he started with a very small plant, whereby the production capacity is next to nothing. But by then, he was producing with little low capacity machines. But as time goes on, he realized that this is not the way. I need to expand. And then that is when he massively invested into the factory today called Tiger Cement uh, under the under the JAR Multi Industries. And this is how the Tiger Cement came in. You can see for yourself, it's a multi-million dollar investment. It's massive. It is not only massive, but also the capacity is massive. Today, Jar Oil Company has an installed capacity of over 100,000 bags a day. The Jar Oil General Manager also dwelled on the recent public concern about the widely rumored cement shortage in the country, despite Jar Oil's substantial cement production capacity. Why there was a scarcity of cement some days back, I will tell you a little bit of it. jar oil as the dominant market force in the Gambia, in cement, at some point, when this infiltration of cement was rampant, we cut our imports. We cut it by more than half because there is no need to bring your full import and it got stuck with you here. You cannot sell it. So we slashed the import. Then, when government announced these measures, then we triggered our contacts again. When we triggered the contacts for them to bring maximum supply, just like before, then time was ticking because the vessel has to be loaded, it has to set sail, it has to come to the Gambia. And this is all time, time, time. The general manager further addressed the public concern regarding the scarcity of cement by mentioning that most markets are controlled by foreign entities. During that period, we missed the target by a few days, or maybe weeks, maybe two weeks or one and a half weeks, I'm not sure. You understand? But by then, the situation was dire. And the second thing also, most of the rural markets and most of the shops in the Gambia here we are dominated by this foreign force. So now we find ourselves in a transitional phase. The transition from where they left us and to put, put a foothold to where they were occupying. And everybody knows in any transitional phase, there are challenges. But thank God, Alhamdulillah, we have moved past the transitional phase. This is why you are seeing what you are seeing behind you. And what we have done also as a contingency plan, we didn't only conquer that transitional phase, but we put plans in place whereby in a month we'll be expecting two and sometimes three vessels. Jamolt Industry is a Gambian-owned and Gambian-based company that specializes in cement production, established in 2012 it is a subsidiary of the JAR Group, founded in 2008 with JAR Oil as its petrol station brand. The company is a significant employer in the private sector in the Gambia, with 300 permanent employees and 150 temporary staff. Jail also announced the launch of a cooking oil business to address the high demand of cooking oil to make it more accessible to the public company's officials said they're offering the 20-litre cooking oil for $1,500 for wholesale and $1,550 for retailers, demonstrating the company's commitment to contributing to the country. For African News, Khadija Tujalo. There is the version of uh, Jowl as far as the Siemens issue is concerned. We also have the Siemens situation update or, you know, uh, uh, yes, update from the ministry in a moment I'm share that. But before then, Monyang, denga Jowl, sen gis-gis Sen taxawaay ci afir semaine bi wax la ministry of trade ñoom tami génne nañ seen but balamai johe Bobu, Bugana bugga naa dégg sa sa réaction manager bi si assurance bi nga xamante ne Gambian na si ci manque manque bi nga xamante ne wax na ko ak ñoom seen production capacity bi wax na ko euh, ak outil li nga xamante ne loolu lañoo ñoo dégg ci réew mi ba léegi ciment manqué na ñii mënuñoo produce lu doy ak yu mel noonu ak tey taxawaayu importance bu ñu am ak yooyu yëpp bat moom dégg nga li mu wax jàpp nañ ne li ñu wax amul ciment manqué wut te njëg li yokkuwut te njëg boobu danaa ko joxe ndax ministère bi yooyu joxe nañ ko ci ñaata lay jar bat ci ci jaawel boole bu ministre ñu lifin ñu ñu boole benn. all right then your ministry bi ñu ne cement situation in the in the country uh, the Ministry of Trade. Uh, Industry, Regional Integration and Employment wishes to inform the public that there is enough um, cement in the country for more than the national demand. All right, as, as of today, 4th June 2024, that is yesterday, uh, the the, the three companies have the below stock. There is Enam Cement in the, okay, um, Jar Oil Malt Industry Limited has 19,000 MT, that's metric tons, uh, 29,000 MT mid-June, 30,660 MT end, uh, end June, 29,000 MT first week July, Gasem Limited have 6,500 MT, 15,000 MT, uh, 15th June. Salam Company Limited have 70,200 MT. Furthermore, the ministry also wishes to inform the public and retailers of cement in particular that the wholesale price of cement by the local factories have not changed since the introduction of the measure. The wholesale price of 42.5 R cement at Jawel Multi Industry remains at $355 per 50 kilo uh, bag. That of Gazem is at $388 per bag for the 42.5 R cement and the wholesale price of the 32.5 R cement from Slam is 330 per bag. The ministry wishes to reiterate that the quality of local cement is consistent with international standards. The ministry therefore oh, calls on all importers, distributors and retailers as well as other stakeholders to directly contract the factories and take advantage of the opportunities created by the cement value chain to support their businesses and livelihood. Signed, Lamin Damfa, Permanent Secretary, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment Wow, so loolu moy mbir so neneng, ci ci ci yes. ñu ngi asso public bi ne eh, ciment bu doy mu ci rew mi sax lu upp li nga xamantene lolu la rew mi soxla ci jamono ji. lolu débat non so lolu lañ wax té demba lañ halbi xal bi té nenañ euh joxé nañ compagnie bu nekk li nga am période bi. ak lañ lan stock bi nga xamante ne moom euh, Jaa Oil ak Gasem yu ñu am right now euh, ci ci ci ci ci ciment so nee nag ñi nga xamante ñooy ñuy jënd ji jaayaat wala ñi nga xam ñoom ñooy distribute nag ku nekk jël opportunity bi pour fexe nga euh, jëflante ak mm-hmm. affaire daal continuer nu mu war a demee am na solo waaw lu bëri nag mu si nit mën na si jàngat lu bëree bëri parce que àddina bi it's not only February December. décembre rek December. du February rek 2020 end of 2024 nekkul end of 2025. waaw dafa sori trop dafa gudd te loolu yëpp lu jar a xel la léegi nag askan bi dinañ because ñiñ yaakaar teg leen si kanami. yi mm-hmm. réew mi pour ñuy saytu mbiri askan bi ñoom ñoo wax li kanam rawul ay ñu dem but there are different price si si si companies. waaw 355 dégg naa ko 383. 335 mm. dafa mel ni ñetti compagnie sax bokkuñ price. 330 waaw 330. maay mm. pro léegi itam mu ngi si waaw léegi ku nekk Fototo ku nekk Koyna ku nekk Makati mm. ku nekk Bansang ku nekk Wasu. lan ban price lañ leen organiser ñoom pour tegal leen ko. they are part of the Gambia. waaw ci li ma dégg. waa dafa mel ni daanaka Greater Banjul area bi leen nekk di defaral lay wax ñoom it dañoo tabax. waaw. so lan lañ leen lifinal ba fekkee ku fa win contract bu xam nga factory prices lañ lañ joxe. ay non factory price waaw waaw léegi nag ku jënd ci ci ci ñii. Mm-hmm. ci distance bi la ñoo xool. waa doy loolu nga faa teg ak sa profit. waaw loolu yëpp foog naa ne tax war na mun a bokk si lu government organise. because euh, as far as léegi nii ci jaaweel moom dama dégga dégg ak as far as léegi dañ bëgg a doole kuñ kuñ jaay hmm. ñoom ñoo lay transportal si yóbbu waaye ten dalasi lañ dee caaj ba baag hmm. waaw léegi nag su fekkee ne da nga. Greater Banjul waaw loolu laa wax. su fekkee léegi ñu ne dafa mel ni plan si Greater Banjul area su fekkee ne léegi da nga sori. bu boobaa da ngeen di négocier ak ñoom xëy na su fekkee ne fii. of course dañoo. so loolu nag tamit du ñoom léegi businessman bi ku ñëw jënd lu bari. waaw kooku bu yóbbee loolu tamit comme ni ko waxee. dañ ko war a bu parce que lii problème government mun na am ay contrat si àll bi li muy liggéey li si gën a bari mu si àll bi. Mhm. léegi ku ko jël moom naka la lan la war a jëndee fële wala Ablaye Fall wala Omar Diagne bële war a mun dem tabax. benn ifin saala cabinet tam moom lan la moo dem jëndee saako. waaw waaye nag so loolu tam a semaine bi. ndax loolu tam sóoraale nañ ko te njëgi Serekunda ak njëgi Basse du doon di benn. yaawul non. waaw ba soo ko réglé wut mun naa ëpp si ñoom. te day part of the country. soo ah, warloo defaral rek warloo xaymaal wala léttal wala talil only waa Banjul bàyyi lu des. Hmm. Greater Banjul area. Hmm. foog fekkee ne dañ bugg a xàllal yoon te xàllal nañ leen yoon te benn Gambien du bañ loolu. parce que defin bi ak niñ ko defee. ak moment bi ak num mu mo ci jaxalon Gambien ci way ku ne xam na ne kenn bañu nga dole li nga am and government bu mi am si am kayit is proper investigation because any businessman lu nek sa kanam moy sa interest mhm. and sa interest bo jaral na nga egg ñi jall government foog mu xam lool tam so lool nak government du ko waru ko compromise bom jaral ko sa mu jël intelligent mu dem yenu fa ko sa pour xam what is the what is in the ground yes pour yëpp pour mu ñu sàmm ak ak yelleef yi nit ñi tax ñi denk leen lii nii but warut em am ci only paper ñoom seen jukko ñoom nga xam ne seen everything is paper they are not doing proper eh, investigation and jar na ko so you jar na ko because doo faytal nit ki ba mu am hundred nit ñi muy jëflante tam da nga leen war faytal ndax lu moo wax nit ñi is true or not this is starting scan bi ndax nagal la mo mujjé way jow jow ah. mu ñangi légui def na investigation So, démé ñu dem ñu joxé ay stock. Nah, joxé company compagnie bu nek so démé ci compagnie mu bindal nah, kii stock si mu la wax joxé nah. nako is you can pick it from there. but the reality. munoo ko am just like ñu leen ñuy jox nii. loolu la waay so you have to be in in the. loolu la waay man mun ngaa mun ngaa assume ne bi def nañ seen homework. non homework si nothing. parce que leen laajte rek amul homework si yëpp. man what I believe man. déglu ma rek man su lu ma gëm mooy ne dafa laaj salaam mu wax ko lu mu indi 15 juin xam nga ñaata julaay jaa oil jox ko di same kii jox ko di same but that's not enough for me. te loolu laa gëm ne man noonu la fa demee. léeg-léeg lu mu fa demee des na si ñoom. man loolu laa te fi tamit lu ma gëm mooy ne proper investigation war na am ku fa dem sax di enu saako fekk mu ngee lijjanti lu fa xew ndax is true di report de give government ba government jàppale leen si lii loolu la wala déet parce que any businessman bu la kenn ndax importer bi ak ñi fi nekk yëpp they need business interest and that interest moom laa la wax ni fu mu leen jaral pour ñu eeg jëli ko day wul doyee waaw léegi man nag foofu laa waxee léegi laa la wax li nga wax dëgg la waaye tamit man li sax ma ma gëm ne ministre bi foog ma ne dañoo yabee noonu askan bi wala bugga leen fooye ñu xam ne ñu xam ne situation am na ah. at this juncture coow li bari na mm-hmm. te kon ni nga ko waxee le fact of the matter mooy ay businessman yi mm-hmm. seen interest la ñooy xool waaye nag ñoom nguur ministry bi moo fa war a nekkal askan bi so they cannot come with this kind of press release pour ñëw nga ne dañoo nax askan bi I don't think they can no not say dañoo na askan bi. non moo tax may la I think they must done their homework rightly. man nag loolu laa gëmul as usual li moo day am. just paper rek. non boo ma la joxee press release bi de. non lu ma la bii mooy man man lu mu am. fekk ñoom demuñ ba foofu ñu gis. that I believe ko that is their nature ñoom loolu mooy seen dugg. non man góobamaa mun nañ sañ nañ def loolu. waaw ne. because ni problème ne. lu mun a xew te ñoom ñoo war a defee askan bi ngay wax ni. Adama waxal am nga lu tax ma. su ma xel mu jox ma loolu di période bu ñu indi lii wartoon a demee nii it's very short. waajaay bu ñu waroon a waajalee lii dialogue yi ñu si waroon a def ak ñu ngi ko seqal ak nuñ ko waroon a defee ba réew mi yëpp xam ko moom leen defut ko mun naa gom na ñii liñ leen li leen ñële jox loolu leen jël loolu leen def seen press release but there is no proper investigation boo xam ne nii loolu dafaa jël a month Amadou. no but soo xoolee ñii dañ xëy rek lëmas lëmasee ko rek indi teg and noonu. non because li nga war a sóoraale mooy coow li bu mu tàmbali ak léegi coow li non loolu li is period of six months non loolu if you want to do this non non non maximum lu gën a tuuti is period of six months non li ma wax mooy non lu ma wax la loolu man dama dem pour nga dem nga xam comme compagnie bu nekk ñaata stock nga am available ba ñu ne luñ am is more than enough that luñ niir ci réew mi Amadou ñii olli di ñii ay weer leen la fi limal yeneen weer yi ñëw nag stock si naka la ma non waaw loolu laa la so loolu la ah, ak àddina bu jaxasoo bi nga xam ne anytime gaal mun naa ñëw sa du ak loolu so loolu weer yi rek la wax a am si weer july non waaye lol tam if you said that if you import tamit from Senegal, they cannot guarantee ne comme lay ñom tamit fekké ne situation amné affaire du manqué xam nga ñun suñ jugo fi liñ la waxal moy ne ñu gëm suñ Gambie bi dooleel liñ am Mo dama ne ne problème bi is period of six months pour régler li and government dafa régler ci lu mu du three months lol laa la ne gis nga voilà lan moo tax nga gëm ne dafa wara a jël ay 6 months yeah of course because amoon Ya nga def lu nga xamné ni di seen gambien bi mu ngi see gaañu. waaye da déglu ma waxal la. waaw may ma rek ma waxal la man su lu ma gis. yaa ngi tey importé seen moto yi ñu ngi si booda bi. and they have deposit and sokosim ñu ngi ko fa am na ñu ko fa am soo boo bëggee régler issue bi lii mun na jël période six mois pour nga régler ko ko si laay nañ sa fee council si nga def sa investigate si compagnie si quality quantity te yow bul jël report bi mu la jox moom nga xam ko si suuf ba pare second li nga ne kaay leen yéen ñi doon jëli semaine fenen nguur de li la bugg def then buka a dooleel ñi fi nekk yéen nak yene day jëli joxe neen dis period yow ñaata nga fa am sa deposit fexel bala weer bi bul fa jëndati dama nga jël sa deposit dañ bugg close nangam because the problem is moy ne den bugg a li fi lena. suñ leen nak ku doon dem di jëndi Dakar di ñew jaay si Costorodu wala nga jaay si Wellingara nga dem jëndi ko jah jaa oyel bébé bi saako bu ngi do am ten ci nga am ko édalé ci si jaa oil, sa auto bi dematu Dakar amul lulu is very then ngay dem Dakar. don tale xam naa ne ñoom du jaawel du len defal len leen su ko sim bi defal. parce que ñom lijeenti won ko defal na mënu ko rek la man bana bana way mënut joxe bonus munta a joxe notin ñom ñom wax nañ ko. lolu na pour nga régler ko pour bañ tam sa dom ji mu loru den nga bëgg sa dom ji moom mu jall da lolu yëpp askan bi moo tax nguur gi di ko def. waye su ko defee nag ñooñu jox len période ne leen period ba période ba pare fexé nak sen dépôt ni am jël len ko bi ko fi ba five or 6 mois dañ bu ko closely mm-hmm. Ter ta right now ni ak nu munta démé waron len balal ni sen trog yi poste posté mu ñibsi wow ak anyhow ifin bu ko buy tat dalasi bi ñu ne leen case close jeex motax manela ak num démé auto waru fona dess des bu ko ko gisee mooy ni ko nguur gi warona set nu ko nguur gi warona handulé amut parce que dañ ko parax paraxee parax parah moo tax ma ne la gowuma ne amnen proper investigation parce que dama gëm né reports yi they are taken from Gassem and Salam and Diawel yoy leen ñu indi askan bi légui légui légui ah, dégg naa la yow whatever baax na ok man ñu luñ gëm luñ mom wa still now lola believe believe man waaye période bi mo gàtta ci xeex lu melni am parce que bo ma defee ya ngi sa am sa dom bu yéré wa amna na sa doom buy jooy te ñoom waruñ ci jooyaay boobu reeloo dom bi jooyloo dom wa ci jooyaay bobu la ci jooyaay boobu mm-hmm. dina dina dina dina comment touti euh basically dañoo ñu ubbi line si immediately after this man man li nga wax. Mhm. I entirely agree ci côté ci benn côté. ne consultation dafa waroon am mooy mm. waxtaan bi nga war a am. yes waaye dafa mel ni romb nañ situation boobu. romb nañ ko que lu waroon a am. dafa mel ni amut ba tey am na ñi nga xamante ñu ngi jàmbat ñu importers yi ñu ngi jooy kontaan nañ ba sax ñuy blame nguur ne dafa saay dafa ànd ak factory yu fi nekk. yokk tax bi yëpp loolu la loolu moom xëy na waxtaan dafa comme ni nga ko waxee noonu la waroon a demee jox leen timeline mm-hmm. bu tolloo in three months time dañoo stock bi kenn du importaat wala dañoo yokk tax bi mm-hmm. loolu fine but léegi romba foofu but ministry bi lu ñu wone at this moment lu am mooy coow bu ci dëkk bi mooy euh, naka sax ciment dafa manqué ah, amul ko indi non loolu laa wax non loolu laa laa wax loolu moo am ah, right now ci dëkk bi te am nañu ko góom am nañu ko oto buy wàccee ah? ñu nag non loolu laa la wax ma ne moom fu ma tourné gis naa oto buy wàcce loolu waaye fan yële waaw manqué woon na parce que gis naa ko bëggoon lu ëpp ñaar téeméeri saako xam nga te si compagnie la dem ñu ne loo am waaw léegi nag téeméer nga mun a am waaw léegi nag léegi nag bu sutur amee man dama fiil ne nguur ministre bi dafa war a jël ay jéego dem gestu si xam compagnie bu nekk lan nga am ndax li nga am ne li ngay wax dégg la am déet ndax am nga lu doy parce que ñoom ñaar ñoom ñëpp ñu ngi mbubu am nañ enof enof waaye nit yaa ngi claim ne ciment manqué na njëg bi yokku na an ñoom ñu ngi wax ne yokkuñ ba pare am nañ doom soo ministère bi dina dem saytu xam ku nekk ñaata nga am ne fa seen ay ndaw ñu investigate xam and from that la believe la lañ mun a come up with this statement pour wax ak Gambien si but I don't believe wala fooguma ne mun nañoo toog seen office yi kese ñu yaakaar li jaaweel wax ak eh, gasem ak salaam ñu ne foofu la ñu sukkandikoo kese te ñoom gisuñ ñëw génn statement nii ah man bu ñu ko yebee kon kon bu ñu ko defee ñu bett réew mi bu baax lu ma gëm ne moo am benn oo na leen ah wax leen lu ñu am oo dem leen fa ñu wax leen lu ñu am an loolu doy su soo dem soo demee da ngay dem xool <laughs> business waaw I think bu la kenn nax but I think government bi they should be very much te dogi leen parce que ñoom ñoo war a defend ñoom ñoo a defend askan wi ñëw ne mooy ne waaw there is not proper investigation because lu la ko mooy ne décision bi ni ñu ko jëlee baaxul c'est short période loolu nag moo lay moo lay juróol ne proper investigation amu fi ñii dañoo yónnee seen ndaw ñu dem si jaawel mu jox leen lii leen fi am lii leen ñu bind. waaw dina fekk ñu gis ko de. lan affaire du dem que luñ produit ba pare now ñii lu leen lu nguur gi wax ñu ne waaw because is there hundred percent interest. lii la gars yi doon bugga so léegi na foofu ngaa xamee ne kii lu nga koo defal ni daf ko neex de loo laajte mun na la wax am naa ko de mais bi lu bu la ne am naa ci su la waxee am naa ko yow da nga war a gis nga mu woon la moom lan la am loolu laa góob ku nga yóbbu bu talee loolu bu dafay tal loolu comme lan waaw yow am in we all know we are all know this country bàyyi ma kat bu fi dugal sax ci biir baax we are all know this country waaw comme waaw nit mun naa ñëw bindal gisul ñii fan yow ñii ñaata at ñu ngi fi ñu ngi fi door a indi advertisement because of this issue because of this period because of ñii this people moo tax a wax sax léegi ñaata at ñu ngi fi mos nga fee gis semaine bu compagnie semaine bu fi indi advertisement waaw so why this period mun nga fee gis ñi ooyee press conference seen intérêt la moo tax nag they have to be careful of this guys xam nga lu ñoo jooy seen intérêt a tax I know léegi nguur ah? moo war a nekkal askan bi ñoo war a defend nit ñi nguur googu nag moo war a careful moo war a bàyyi xelam déggoo lu ma déggoo ma de man loolu laa wax careful boobu right now nii carte si mu ngee daw amono am naa jukko Gambien si carte saa ngee daw you can send there if investigation ñi dem mooy loolu ñi def ko ji ko faale ne jaaña ñi mu demee noonu ah, dem rek nga jël kayit bi maag ñëw teg ñëw ñu létt ko moom rafet tegal la bu ko because permanent secretary can happen because pour ñu génn in this period jaral na leen lu ne bon am na la la ëllëg la su fekkee def na fi within one month wala fii am na si compagnie bu nga am na si compagnie bu nga am ne nii man fan yii trogom foofu mu ne ko suma machine yi den paan waaw loolu mun naa nekk situation rek. ok soo kooku boo fa bu fa gouverneur daf ko ne mun naa provide everything. waaw loolu loolu. du ah, ko wax machine bi neen paan. non paan ma paan paan moom mun nañu loolu daf day am fu nekk. ay non am dama la bëgg a ne ma ne bu government gom ñi hundred percent ndeg lu mu leen bëgg dimbale. na foog na xeraw la na si am ñaaw njort. government war ba pare bu mu si compromise. si lii government daal nekk soo ne ñii neen defal Gambien si luñ bëgg. loolu man loolu mooy wax ji. foofu laay wooyee gis nga li nga woon yi amul problème waaye dama leen lu ci a laxasu dafa bari non loolu moom dégg xam nga Gambien bi su dul loolu sax xam nga ne businessman waaw intéressant bi jaral na ko mu bi jàll point tamit waaw because mun naa feel na some point tamit yes these officials jox an hmm. Gambie bi yemut si mons yooyu all right dégg nga xam ay mons la jox July am na ni métro tongs métro tongs métro sa dee anoon maison

exactly ba waaw su fekkee ne naaw rek la mën tëdu dal ba pare tamit te ñun ah? den bëgg kuy naaw di dal di naaw di dal mu fàtte lu ñoo lu ñoo wax ah? bi tamit Amadou daal dem nañu semaine bi tamit dafay expire moon ñang loolu tamit doo mun a so ay non ay non ay non so loolu tamit waaw bañu ma décision bi ba dama hmm. boo xam ne nii yaa kuñ koo taxi sax dafa war a dem yenu fa waaw pour mu xam what is the reality ñu faa liggéey seen ak ak seen yelleef whether ñu faa liggéey dee à Gambians or not fan loolu yëpp si compagnie si yëpp day have to check that <laughs> <laughs> loolu yëpp dañ ko war a seet waaw but so but but but loolu loolu yëpp dañ ko war a ba pare itam price bi in Basse in Fototo in Makati in Bansang in Jaaw Saawalo lan la faa jar waaw waruñ koo bàyyi nii rek kanaa combo bi rek ñooy sampa man maa war a samp foofu price bu combo bi ak Basse bi war tam na nekkat benn waaw yow léegi loolu government ñoom ñooy di xamuloo lu muy jar foofu dafa waroon a feeñ lan si statement bi. ñoom waaye wax nañ ñu wax ñu sax lan mooy jare lan lay jar si Serekunda ñoom factory price bi lañ fi joxe. waaw you know and as and waaw léegi bu ñu waxee nit ñi garanti nañu ciment bi am na te mu yokk waaw léegi su fekkee ne ñun. dañ ne dañ ne wa dañ ne am na ba pare yokkuwul. aara moo wax la su fekkee ñun dañ bugg a everything suñu dëkk mu liggéey léegi nag mu ñëw ñoo koy liggéey de. Mm-hmm. waaye mu ngi saf sap safut jaxatu de xool kaane la saf. si lan soo loolu tam seet ko. saf lan mu saf mu seer bu ëpp. ñun lu ñoo liggéeyee suñu dëkk dafa war a yomb ñu doon jëli indi ko waaw léegi waaw xam nga lu ma la wax man du sumay te loolu yëpp government waxuma la sax léegi ay waxi factory de waxi ministre bi laa la wax ñoom dañu asoone right now ne man man wax yi ay nit yu responsabilité ñu ñu président dénk liggéey seen wax laa wax de ñaata moo wax loolu ah? yow fii ñaata la fi nit président dénk li ñu indi fi waxi ku jëm si àll <laughs> ah léegi léegi waaw léegi léegi ah? waaye bii su wala ñu bii coow moo am dañu génn leeral si loolu ah fii président bi ñu ne ñu am nañ moo daan enaf andi price li def mu pare si ñaari weer parewut si ñetti weer parewut yëpp président bi dafa am ñu ngi ko dénk te ñoo ñu ngi fi waaw bu wax loolu ah man seen wax laa la mun loolu loolu laa jot bi duma wala wax waxi keneen anyway ah ok all right d' accord naa man sax li ñu wax d' accord rek nga raawul waaw amul problème dem na ñëw na mooy ne waaw ñun dañ bëgg suñ mbir ñu moomal ko suñ bopp waa ñu doole lu fi nekk ñu doole lu fi nekk ay loolu moom def bot nag nguur gi foog mu xereñ si bu mu si topp taxim rek gars yi dinañ fay taxi yi bëri. waaw ah. bu mu si takk dama siisu pour def lii ba force to force def si juum daf ci daan. ci consultation bu waroon yes période bi is very short. ban période. bu ñu jël pour def lii dafa gàtt. warutoon nekk période bi pour pour ñun ñu stoppé stop ko dafa waroon a nekk about five to six months nga a importation parce que they are still mu ngi soog a sim Sénégal. ci ci ci li ñu wax. yes even this company ñi ñuy coow nii sax ñoom dañ jëli sunguf rek ñuy jëli sunguf su ñomb waaye ñoom ñëpp dañ day dem Sénégal fii. ñii du Sénégal lañ dee dem. ñoom ñëpp dañ fa dee jëli. ci la am ku fa di jëlee ñi dañu waxante dëgg. ñoom ñii amul ku jëlee ñoom ñëpp dañ dee jëli sunguf Sénégal kii na jëli sunguf su ñëmb amul ko fa du jëli. waaye ñun waaye lu ma la bëgg a xamal. mooy affaire mooy ne ci réew ko wax léegi kay lu fi ko doolal. ay non amee lu doy. comme gars lu ma la wax amul. problème bi a indi ba. ba pare fekk njëg li yokku ba fi loolu mooy problème bi te nguur gi foog mën a ñem sañuñ loolu. ok loolu laa wane ne ko gars yi mu am. waaw exactly wa second li lu tax mu am si ñaaw njortu mooy ne li waroon a am si période of five mois ñu réglé ko nga régler ko ci week la mo dayo nga tiyene loolu foog mu ay 5 ay 6 mois semaine mo waroon tek ci boss ci bonne loolu loolu situation moko indi situation moom mo waroon ñak parce que dañu waroon waxtane mbiri wa loolu la way loolu mom nangu ñak so léegi nak dañu na waxtan waroon na am bo yow mu lo jax 5 wala 6 am nga trop so ñaata loos waaye mu na régler li within one month or non non non du mu na nek moo tax ñi té am domam yi ré am domam yi joy wa yes that's not correct te mo joy lo ki mo ré lo ki moo moko warul nak to eh, parce que bu defon lu wara def ci def ben ki du joy bu ko ki di joy dina dem ba xam eh kilifa gi lu mo wax la parce que bala nga nam ne fa bala nga bala nga wali nent nga suñu bir rek man ay support dis eh, eh, naka la yene bi ni local production. support na 100% bo dafa am lu ci laxasu lu nga ne bu ma ko supportoo it dinaa ko xol li ci laxasu lan la parce que lo ñii only their interest fi compagnie bo gis mu jog di ciow dafa métti ci koom waaye buy neex ci koom du mus a yërëm nit ñi. pour mu leer. kon importation ni ñu dafa métti rek. am ah, foyal nangam si bu ñu fi leeree loolu la ba ñoo yokk kenn déggu leen waaye su government yokkee sa ko ñu oote press conference bon liy jëm si askan bi. waaw seen yoon nekku si. loolu moom te man askan boobu ñoo ma tax di wax. ak liy jëm si ñoom ëllëg. waaye askan boobu nag. compagnie yi si leen bokk ban ñu importe si leen bokk an fekkoo ne pro government bi dafa waroon a def lim si war a def def jikko nguur def yëfi nguur def yëfi kilifa toog du nek si boore bi an bu ko jël three months or five months kon waxtan dafa warona am tay troog wori foon a des tey li mu warona gis moy né is close tay moy deadline bi is close is close way tay troog ñu fa am na ñu nga xam ne seen mu ngi fa. an loolu dañ ko war régler dañ ko wara régler wa ah, way do xey rek fexé so ben dom mu nek si olala oh sa benen dom di joy tay yow dom yi yëm nga jur leen. that's not correct. waaye Ola te loolu lu na Ola la boobu. Ah. ci interest Gambien si laay of course I agree with you. waaw la naa loolu tam bot ñi interest Gambien because many Gambians dañ jël interest. investigation yi. Ah. many of them loolu lañ jël si bi so loolu la ko mun a indil. all mu ngi noonu su ko defee leen waroon a jiital force. waaw bul ko pamti pamte bul ko sorxu sorxee. waaw da ko war a def période bu doy. Mhm. kii jël dépositam jeexal nga ne ko nag pare na suñu dëkk la ñoo dooleel. waaye na fi yem dem def tati five li fi cuune yooyu. nguur du doxalee noonu. xam nga tamit inter inter inter euh, trade agreement bi dafa am. ci ah. Afrique loolu duñ jékki-jékki rek baan kenn du import fii ciment. mu lu ñu mën a def mooy yokkat xëy na yokkat tax xam nga moo tax ñu ñëw ba baalal ma rek nga ubbi line si ora ubbil ñu si ñuy seetaan tamit mun a bokk ci waxtaan bi du ñàkk ñoom tamit ñu am ci gis-gis yéen ñu nekk ci biti kon xam ngeen ne am ngeen cër bu rey ci ci ci jotaay ji euh, lu ñuy waxtaanee mooy affaire yi semaine bi ci réew mi euh, ministre bi wala nguur gi jaare ko ci ministry of trade ministre bi nga xamante ni moom moo yore wàllu jula gi ci réew mi nee nañ euh, semaine bu doy mu ngi ci réew mi te lu fi nekk sax daanaka ëpp na sax luñ soxla ci réew mi. du may kaddu ci weer yi euh, ci ci weer yi nga xamante ne waaw noonu la noonu fa mën a demee sax. Ah. jamono bi may wax nii la ñu wax. fii ba ah. June ba first week of July. ci nuñ ko waxee lu doy mu ngi fi ak tamit njëg li yokkuwul ci nuñ ko waxee. Euh, waaye am na yi nga xamante jàpp nañ ne jamono ji semaine dafa manqué ci réew mi te njëg sax mu ngi yokku ndax coow bu am ci affaire semaine bi. loolu mooy ponki waxtaan bi ak fu ñu tàmbalee tamit euh, boo leen ci bëggee comment. Euh, mun ngeen ñëw ci line bi 23 23 213 ñu jël seen ay réaction ñu ngi xaarandi seen ay call incha allah euh, léegi léegi balaa loolu ñu continuer waxtaan bi ak Monia euh, dafa am loo bëggoon a leeralaat nga ne. leeral bi mooy ne rek. mooy ñu dimbale fexe ba yeneen doomi Gambien ne gars yi demoon si banque si. Mhm. kuy jëlee ko de yaa ngi fa am loon da nga dem jël loon si banque si. <coughs> ñëw di wut business boo def si réew mi. waaw soo business boobu. amna bu gënal nguur gi amna bu gënal li upp ci Gambien ci moy ñu dooleel ñi fi am company gosse yo lolu maybe sa driver ak sa truck rek la but company daf day employ hundreds of people so do you cannot compare development yu ak yi but nak neen fexé ñu leen dimbalé be semaine bu nekk ci booda bi ak anyhow neen leen dimbalé ñu génnee ko indi ko seen auto yi dem liggéey because oto yooyu mëna neen wër ci auto truck yi dañ dee wër ci thousands losses yi si bëri la mm-hmm. ci ko xam dafa jël loon ci bank soo loolu tam government mu sóoraale loolu nu mu mun a def pour dimbale ñi mu release seen yooyu noonu. waaw gars yi tam de naka la ñoo négocier. ba jëli seen déposit ñu am foofu amicable solution mun naa am. Ah. ci situation bi loolu tam loolu tam na ko gars yi sóoraale war a invite ñu waaye waaye waaw ba pare itam ñooñu tam. Mhm. Euh, ñi nga xam ne ni tam ñoo nekk si fànn boobu tam. importance yi importance yi ñoom tam ñu ñu ñu ñu ñu def yëfi professionnel te xam ne ñi dem waxtaan ak nguur nguur si fekkee ne sax dafa jël sa right waxtaan ak moom rek nga man waaw dem nag jege jege wane leen am na lu xew waaye nañ ko waxtaanee nguur gi itam déglu leen ba ñoom itam ñoo nekk si mbedd mi rek di coow parce que loolu du sottal affaire bi li ma gëm sax mooy nguur moo leen a war a invite ñu waxtaan ñoom ne waxtaan ñu réeli seen moto yi nekk foofu noonu. moto yi dañ wara a liggéey hmm. moto yi amna ñu war yam na bu ñu dañu dem fi charger ci compagnie di yóbbu si biir dëkk yi ñoom tam wala ñu eb bagage yóbbu continué suñu force call mo ngi ci line bi Abdoulaye Diallo mo ngi ñoo callé from Brikama monsieur Diallo ñu ngi lay nuyu bu baax naka nga def mo rek na nga def Amadou waaw jërëjëf waay naka si alhamdulilah naka mooy ñambaar mu ngi si jàmm jërëjëf mu ngi bu baax waaw ah, sen programme bi ya doon deglu amna interest trop mm-hmm. dama bëgg a contribuer si ñaari fànn rek mooy xale bu góor bi nga ñu wàll dafa feebar. waaw waaw waaw waaw waaw. Mhm. waaw comme ni loolu dafa daw yaram trop sax. Mhm, mhm, man suma xelaat bu ndaw bu ma ci amoon mooy. waaw. su nekkoon ne nga nga mën a def collaboration ak GSM opérateur yi nekk fi fii. comme ni soo xoolee téléphone yi nekk si Gambia fii dafa bari trop. Mm-hmm. dina opposé a three hundred thousand téléphone yoo xam ne nga use different line mm-hmm. comme ni su nekkee ne nit ñi dinañ mënoon a jàppalante comme ni soo jëndee crédit ñu génnee fa tuuti la si fifty butut mm-hmm. ñu ñu ñu def ko budget soo naa ne boobu within one day sax du mun a du mun a five hundred thousand or four hundred thousand because two dollars point fifty butut times 200,000 people ñu dugal kredit, So ko seetee bobu dina dem ba around 500,000. Mhm. so lolu mom, suñ ko doon mun a def dina don dimbali askan bi trop te kenn du si. ok jë jërëjëf wangal lu am solo ñu sa jàll ñu ko koo dafa melni ni euh, nañ ko ci euh, line bi ñu ko koo ci euh, xalaat bu am solo bi nga xamante indi nañ ko waaw. ne. Mhm. man salaam xaw ma fu mu nekk su ma la waxee dëgg gasem xaw ma fu compagnie boobu nekk jaaoyel de moom dem naa fa xam naa fu mu ne ba flotte xaw ma ñii import billaay xaw ma si kenn koo xam ne mun naa la wax diw mi dafaa jënd ciment Sénégal indi mm, mm. billaay wala tale xaw ma si kenn bat lu ma gëm rek mooy ne rek anything rek dañ koy waxtaane réew dañ koy péncoo dañ koy waxtaane pour nga bañ a lor di lor diw te buñ yakamti dara nañ fexé rek be ku si né ci féké dañ laa bàyyiloo dara liñ lay laay bàyyiloo bu ci loru kuñ ko jappalo bu mu si loru ko tam mu continuer man loolu la ci gis loolu noonu yes hmm. te itam nak doon doomu adamo daf dafa lifin de ñu bàyyi xel businessman dé gaay dañ sañ liñ lay wax ci ko ak lu nekk ci souf hmm. ni demb ak dawla ni gudé ak beccé so lool nak nguur mu dafa wara xam lool te mu hmm. war ko sañ te right now gars yi amul lu mu leen jaralul. Mhm. sukur soow si oo ñu jox la lem bi. Mhm. te loolu nag ku ko si bàyyiwul xel di nga lor askan bi ëllëg. waaw waaw sooraale askan bi moom. dana doon lu am solo dem na na euh, nit ñi lañu war a sooraale situation bi mel nii. Euh, su ko defee euh, am nañ beneen koola ci line bi sëñ Mbaye Mbaye Sarr mu ngi ñoo koole Serigne Medina seriñ Mass sëñ mbay ñu ngi lay nuyu bu baax naka nga def. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu Africa TV. waaleykum salaam wa rahmatulah. Amadou mang len di jaka siar siyaar di leen dookeel jërëjëf di len machaw di len ñaanal yalla taxu len sama len gëna yaatal seen xel ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam allahumma amin ya rab Amadou li nekk rewi Gambia ñu ngi tok di setan way fam jëm baaxut jabut mm. rafetut mm-hmm, mm-hmm. te Amadou setané dafa niroog setan de mm. baatu seytaane ak seytaan day niroo trop mhm. am na luy xew ñu ne seytaane la dañ seytaan dem nekk seytaane te mhm. seytaan baaxut mhm. seytaan ci lu baax rek la baax lu baaxut seytaan ko baaxut Amadou affaire yi semaine bi dañ bugg a delloo suñ dañu bugg a delloo ci ay néegi banque bu ngoo nappa nappal ay tabax ay génne ci affaire yi semaine génne ci affaire yi Colgate système bi foofu la ñu jëmee Hmm. boo seetee factory yi nekk fii nii ñu ne ñoo amee ciment bi ñoom lañ war a prioritize ngir ne doomi réew mi lañ dalee ko baara ba farafeñe amuloo fa benn benn store boo xam ne nii ku bugg a jënd ciment mun ngaa dem foofu jënd dem jaayi ci beneen area hmm. boo jëlee farafeñe ba këwur gisuma ko fa ci lii lu ma leer la léegi tey bu fekkente ne man ma jëkk a Medina Serigne Mass war a yaakaar Cimenti Dia Oil wala Gasim ñu ko jaaye ci Kombo area bi ay three hundred eighty three hundred seventy five war koo jëndee foofu war koo transport pour mu ñëw fii nii ñëw North Bank naka laa lay jaayee ak transportation boobu noonu la naka lay demee ci suma kaw. léegi ñoom ñoom factory li ñoo coono wax ne dañ leen war a prioritize dafa waroon a nekk ne région bu nekk wala district bu nekk am nañ fa magasin boo xam ne koo xam ne da nga bugg a def business yi semaine foofu ngay dem jëndee nga dem jaay mm-hmm. sa dëkk waaye dalee ko baara feñe amuloo fa benn benn store boo xam ne yeneen dañoo wax ne yaa ngi faa yaa ngi faa load ay ten thousand tonnes twenty thousand tonnes amuloo ko fa yow naka ngaa mun a waxee ne réew mi dañ war a prioritize the factories yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi fii te fii factory nekku fii ay businessman lañ amuñ benn kamika bu ñoo liggéeyee semaine puudar bi lañoo dem jënd ci beneen réew indi ko fii mhm, mhm. da ngaa seen not bank fi nekk nii ñaata businessman tey ñoo amee seen njaboot seen kër seen tranga yépp ci semaine bi nga xam ne ñu ngi koo jaay saako bi li nga fa am passé wu twenty dalasi mhm. tey fi mu nekk boo jee boo jë tubaab bi mu ngay def eight hundred bag eight hundred bag boobu boo ko jëlee fii ñu ngi daan fay saako bi thirty dalasi nga mun a ñëw fii nii ba baara nga ngi koy jaay three hundred seventy dalasi three hundred seventy five tey ñu ne saako bi dañ faa yokk one hundred plus naka ngaa jëlee taxi thirty dalasi yóbbu ko one eighty. Hmm, hmm, hmm. xanaa ñun ñun nekkuñ doom ci réew mi xanaa ñun nguur gi ñun amuñ cër ci nguur gi. waaw yeneen facteurs yi si ñoo wax ni ñu amee cër ci nguur gi nguur gi war leen a toppatoo taxawu leen ñun noonu lañ amee cër ci nguur gi. yaa te nguur moo leen war a taxaw gis nga nguur. Mhm. liñ li gën rey réewi Gambia wala Afrika dañ jël nguur moomale ko political party nguur political party nañ génnee seen loxo ci nguur moomuñ nguur ñoo fekk fi nguur dañuy dem bàyyi fi nguur. Mhm. kon boo fi nekkee rafetalal ba beneen nguur bu ñëwee mu nga mun a nekk royuwaay ci moom pour mu mun a def lu ëpp li nga fi def. waaye yées na trop nga nekk fi jógee koo fi keneen ñëw di des ñu naan maa mu di la tontu ne la maa tane ke fi defoon maa tane ke fi defoon warta tax ñuy fal nguur nguur dafa am warigar ci askanam gis nga président bi jaan ji ci réew mi sax président bi am na jaan jooju sax am na cër ci moom nga xam ne doonte jaan ku nga dee wala ñu foog ne da dee jaan boobu sax dafa am cër bu mu am ci président bi ndax àll ba nga xam ne kenn waru fa am soxla jaan rek moo fa war a dëkka ku fa dem di fa rey jaan da nga tooñ te nguur war sa seetaan duul kon waxuma la nag ki nga xam ne dafa nekk doomi réew mi waaye xelam moo matul kooku la nguur war a gën a bàyyi xel dëgg la ñu nekk ci àll bi di sor sagara gi ñu dañ feebar. Hmm. dox yi ñu ngi ci biir nit ñi. te nguur gi daf leen war a kiiwaat daf leen war a bàyyi xel am na ñoo xam ne ay boroomi fit lañ ragaluñ dara mën nañoo kër ni rendi ko ñu dañ am ci nguur gi nguur daf leen war a bàyyi xel. parce hmm. que su leen nguur bàyyiwul xel fu criminel defee lu mu war a def ñu rey ko fan la réew mi jëm. Hmm. nguur li war garam mooy jub jubal ak jubanti. te loolu moo war a tax ñuy sampa doomu aadama musta independent yàlla bi mu wàccee aadama moom kenn mu nekk fi jondong dafa indi eh, hawa hmm. ba mu leen dugalee ajana dafa leen jox dafa leen dafa dugal seytaane seen biir muy iblis si iblis bi mu reyante ba génne leen yàlla xamoon na ne àdduna dafa war a am dañ war a ñëw fii jurante hmm. biñ jëlee foofu mu commencé yónni ay yeneent benn te yonent ma su fee jëm prophète bi sallallahu alayhi wa boo gisee ñu ne moo nekk axiru anbiya xeli doomu aadama dafa mat da nga xam ne ni sareetul yàlla di yónni yonent parce que boo fi yónnee lan lay wax ne nii dañ xam lépp lépp dafa mag moo tax mu noon al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diin mhm. soo nguur nañ jël responsabilité te bàyyil dóor doomi jàmbur làq doom boo làqee sa doom dóor doomi jàmbur bu sa doom di génn ñu duma ko donte ki ko duma nag da nga koy rey waaye boo booy génn ñu duma ko kon la ko dom dor jàmbur jambour boko defé foog ne ndax yang ci gem yaa nax sa bop way sa dom du sax sa digënté tànk té buy génn ka doron ka nga doron domam domam dor sa dom wala mu dor sa jef sar jere jef ñu ngi di Santa di leen jere jef wax bi nga xamné nak passé na bokku ci topic bi tay moy wax Ibrahima Diba ak euh, président bi gis nga gis nga euh, borom kër bés bu xëyee tëgg dënd bu wa kër gi feccee do dor kenn ci ne lu tax sa fecc nga gënné sa taat hmm parce que yaa ko fecciloo yaa tëgg ndënd comme fecc baaxul borom kër war ta tëgg ndënd ci këram boo tëggee ndënd ci këram bu doom wala jabar feccee ba xaaweeku doo ko dóor ci ne ko lu tax ngay xaawee ko ci <laughs> ëtt bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mbaye Sarr ñu ngi ko gërëm bu baax a baax mu ngi ñoo koole Medina Sérém ba ah. Euh, wax bu wax bu xóot la. waaw wax léeb la daal. dafa léebu foofu léebu foofu waaw léeb waaw waaw exactement warutoo teg ndend si këram daal. lu mel noonu la doon wax waaye foog naa ne. xam naa mu ngi koo sàmmaloo kàddu yi waaw exactement te tamit. xam nga mhm. yeneen comme président bi lu mu wax yéen. Euh, bari am na nu ñu ko nu ñu ko interprété. foofu la doon waxee waaye donc bu ko lii problème mooy ne. ku ku am opportunité call rek yi ñu doon waxtaanee si gannaaw so boo si amee idée is good. waaw. waaw mais dama ne because comme que amuñ sens léegoo léegi. ubbi leen si waaw kon kita nit ki tam fekk am na bu muy déglu démb am lu mu wax moom tamit mën na ko euh, see ñambaasaale rek mm-hmm, so mm-hmm. waaw gars yi ñu ne oto lu mu fees fees na suma yaay xaj comme ni ko defee nii ah. waaw am solo jërëjëf euh, mm-hmm. ñu ko gërëm euh, ñu ngi ñun tam mën ngeen def comme comme rek ngeen jaar ci line bi two three two three two one three fi ngeen mën jaar bokk ci waxtaan bi ok ñu jëlaat Cissé mu ngi from Costa Road salaamaaleykum allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Amady maa ngi di nuyu suma jërëjëf waay mu ngi fay bu baax a baax. di kontaan si Good Morning Africa. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Hmm. waaw affaire yi si ngeen bi dee coow bi bëri na si mm-hmm. dëkk bi. waaye laaj bi ma si am rek mooy ne. nguur bi ak trade minister bi ñoom gëstu nañ ba gis ne compagnie yi ñu bëgg a ni mm-hmm. eh, mun nañoo. Eh, sol ko maquette bi mun nañoo luñ am luñ soxla luñ da soxla si man daal mun nañu koo jox mhm. man àndal naa si because dëgg dëgg réew bu nekk tamit nag sa économie dafa war a nekk si sa loxo warloo bés si dëkki jàmbur nag loolu tamit garanti wu mhm. ba pare euh, comme ni mu ko waxee gars yi ñu dee si bi dëgg dëgg lu ñu wax na waaye ñun yëpp nañ lu fa xew mhm. so interest bu si bu si dëkk bi am bariwut so su nekkee ne ñoom mun nañu am enough ciment boo xam ne dina doy si maquette bi all the time su leen bañ di manqué mm-hmm. man man ànd naa si waaye su nekkee ne munuñ ko nag dëgg dëgg nañ bàyyi ñoom tamit ñi isi seen ciment nag ok waaw ndax économie bi tamit mu nekk si sa loxo tamit moo gën a garanti bu ko defee da ngaa gis ne suñ seefaay bi nga xam ne sax déedéet ngi éeg xaj na dina mun a wàññeeku te price si seer yi si dëkk bi yëpp dëgg dëgg seefaay bi nu mu éegee si kaw dala si dina si bokk na si dina si gën a Ya sëñ Mohamed waaye àndaal loolu yëpp maa ngi leen di leen sant di ñaanal ay Afrique ak yokku rabbi di leen xoolaan essayé nag mu munti nekk jërëjëf amiin maa ngi nuyu suma tooma bu baax baax Lamine di ko ñaanal jaama amiin waaye ko ñaanal fan bu di ko ñaanal waa ay Afrique yëpp rek amiin ya rabbi Amin. ngeen bëgg a egg yal na leen fa allahumma Amin ya rabbi yàlla saxal jaama ak déggoo ci Gambia Amin Amin. jërëjëf Cissé ñu ngi koo gërëm bu baax euh, ci ñaan yi yal na ko yàlla nangu te boole ñu ko euh, waaw ok macha allah. yéen si daan AFK TV. macha allah ñu ngi ko nuyu bu baax. Euh, ifin sax suñu yaay. Mhm. noonu la day toppee programme bi foofu si Sabax. ñu ngi ko gaay Sabax Sandial. macha allah Géen Sandial ñaari baalo yi yëpp benn baalo bi suma yaay mu ngi fa. macha allah euh, ñu ngi nuyu ñëpp. soo euh, nuyu tunduboo yu ak hmm. Palen xam naa ne Palen nag moom time bi Palen Sandial moom xam naa ne. foofu hmm. Palen yaa fa nekk. xam naa ne ku fa dem moom time bii. <laughs> waaw dimb xam naa dimb ji gaañ Palen yi. waaw dimb de dimb gis naa waaw dimb jàng fa ñu ngi nuyu waa Guèye nag Mbapp Angale yëpp ñu ngi leen di nuyu. parce que soo fa demee ni comme badi bu rek. Mm. daar riwaan ñooñu loolu yëpp dañ dee seetaan ay Africa TV soo ñu ngi koo nuyu bu baax. Mm. te waaw xam naa ne façon sob la ku bëgg yére yu nice xam nga dem. jënd eh, mu jaay la waaw. yu nice mu ngi fa ah. waaw xam naa ni nga fa dem seeti ko de. waaw waaw dama leen ko dem seeti moom. waaw ñu jël euh, Mr Cissé Moussa mu ngi ñoo collé from Kanifing yes hello. yes hello. nag nag. salaamaaleykum na ngeen def. jaamare and program is very interesting. Thank, Thank you. you. so much. Wow, um, how more are you going to Mr. Nyang? Yes. How more why you Israel? Okay. Long Mhm. Yo, isa boba yo ang contradict sa boba. Apa yang mm mm-hmm. anda mu? Mhm. The thing is, companies you know kaya mm-hmm. ni Dan yang buka dollar. Kan? Wow. Ni hall, the approach down. seen situation su nekkee ñoom seen semaine si mën nañ koo décentraliser. Mhm. am seen compagnie yi nekk in different agency nit ñi mën a am supply demand bi. Mhm. then people can accept it. ok waaye yow soo ne free market you cannot do this. Mhm. consultation war na am balaa lii di xew press release am ne ah lii la government bëgg a def embargo on this or that secondly jaawal ba jël fifty million dollars nga xam ne dañ ko jox Pôle africain Pôle Africa dimbale boppam si our consumption of lu ñoo lekka yu ñiit nga loolu mu koo def mm-hmm. ah mm-hmm. ah ñëpp dégg nañ ko fii dañ isi pour divide maybe fifty million to four business importers bu isi sukkur ak lii diwlin ak lii essence ak lële mm-hmm. waaye moom ñu jël di xool ba jox ko is he for Gambians Is the minister coming out to say something? Mm. So we have to get out. We have to learn why we do politics. So nekk xamuñ waaye bi du politique rek duñ mën a because jëmukaay bi du dem du nekk benn information bi ni ko keneen di dégg ak understand hmm. so people have to know that we contribute our money for our development hmm. and the people we put there they have to serve the community not not the businessmen Mhm. government ci boppam moo war na jël sa fifty million dollars. waaw ibi shop like trading national trading companies like NTC whatever import bagage yooyu noonu du di ko def doomi réew mu yomba. ok moom moo gën a garanti jaawee dëkk dëkk ak jaawee. bu doon jërëjëf leen. jërëjëf all right thank you thank you so much. Euh, ci contribution bi apprécié nañ ko bu baax euh, comme ñëpp ah yéen tamit ñuy seetaan mun ngeen def comme moom but euh, naa ci leeral tuuti rek ci 52 million dollars gis naa ne wax na ci waxaat ci ci liñ ci xam rek ci ci leeral mooy dañ koo dañ ko ko lebal Badiya banque bi ñoo ñoo ko lebal loolu pour mu invest in agriculture of course foog naa ne ñëpp gis nañ lu moo def fale ci wàllu mbay mi te tamit dañ owan local investor yu fi nekk yëpp ñu wax leen opportunity bi euh, te ñu déggee sax mu leerale ko te of course ministre bi tamit wax na ko ci National Assembly bi euh, foog naa loolu leer na ba dinaa ñëwaat ci loolu jël ñu jël Mr Diop moom moom na namoon nañ ko lool. Euh, from Paradise waaleykum salaam wa rahmatulah. Mr ah, Diop jërëjëf jërëjëf ñu ngi si jàpp alhamdulilah ñu ngi si jàmm bu baax. Ah, ah mhm. sant yàlla gis naa wax gis naa kool nag ci programme waaye man leen a seetaan nag bu baax a baax. oh jërëjëf ah, di leen nuyu bu baax di kontaan ci programme bi di nuyu suma tooma. thank you waaw. Ah, di di rafetlu programme bi bu baax. jërëjëf eh, di wax rek ah, mbir mi affaire yi semaine bi dégg la coow li bari na you know. Mhm. definitely ànd naa ci li ci li nguur mi def waaye tamit ñu ñu def seen homework. Mhm. because xam nga businessman bu nekk moom daf laa waxi own site am. ñoom ñaar yëpp soo xoolee ku nekk sa own interest Mhm. waaye government bi as moom muy nekk di financé moom moo war a xool def homework am la su ma toomaa li mu wax dëgg la li mu wax mooy ne dañ war a def seen homework mhm. ba pare ñu joxe consultation wane ne lii ak lii lañ bëgg a def in three months time in four months time des na bi ko lu nekk da nga ko plan waaye doo xëy rek nga ne tab affaire te mhm. ñi isi si doon na ñëpp ñëpp ñëpp duñ waa réew mi am na ñoo xam ne waa réew mi leen so ñi ngee di isi ñoom it di di jëli soo gisee loolu di am because dañoo bañ shortage am te shortage ciment su amee daf dee skyrocketing daf dee am price daf dee over high waaye as far as because diggante fii Sénégal bu nekk da da ngaa defend sa da ngaa defend sa ah, sa citizen yi dëgga mm-hmm. we have the company here fine it's okay waaye nag comme li waa jooju wax mu ne dañ war a am store si ah, ah, si àll bi boo xam ne su ciment bi ñëwee rek dañ ko yóbbu direct système store ñu am fa ay tonnes yoo xam ne ku soxla area boobu di jël mm-hmm. waaye not yow soo ñëwee si factory bi a jël yóbbu ko ba transportation bi anything can happen xam nga. waaye suñu amee loolu dina baax waaye ñu def seen homework toog seetaat mbir mi because moo yi def ci ci ci fële tam bari na definitely waaye euh, li may wax rek nañ nañ toog waxtaanaat affaire yi daal because lu mm-hmm. nekk rek plan la. Mm-hmm. nañ ko plan ne lii ak lii lañ bëgg waaye within this time dinañ ko stop. wala suñ ko stopu tam dinañ ko wàññi. Mm-hmm. you know waaye not ne ñu xëy rek yokk a price bi anyhow nu mu leen nu mu leen di fi def ko noonu you know muy muy isi problème so loolu loolu jaru ko nañ toog xoolaat mbir mi because businessman ñoom ñaar ñooñu ku nekk sa interest rek ngay waxee mm-hmm. ku nekk sa own interest ngay teg noonu rek waaye government moo war a am eewute boo xam ne mm-hmm. xool ñoom ñaar nga xam ne kenn kenn du ci am problème ku nekk mu mu doxal ni mu ko waralee so nga xam ne things dina move together ok thank you so much waaye jërëjëf si programme bi mm-hmm. all right jërëjëf jërëjëf euh, Eh, jërëjëf ci ci ci contribution bi Mr Diop ci contribution bi appreciate nañ ko bu baax comme ah ni nga ko yàgg di defee contribution am na solo ñu ngi gërëm ñëpp ci li nga xamante ne mooy ci ci ci kool yi mun ña mm-hmm. eh, dafa mel ni gars yi soo leen dégloo am nañ concern decentralisation bi ni ñoo jëlee ci factory bi ndax ñoom tamit am nañ taxawaay boobu pour gis ne danañ ko yaatal eh, tey ni ñu ko jëlee sa exemple Sénégal indi ko fii te. Euh, njëg bi du yokka te luñ produire fii tamit war a tamit lifin xam nga tey su fekkee ne exemple ñu ngi jëlee ci biti indi njëg bi mu ngi stable suñ projet fii tamit njëg bi dafa war a dal waaye tamit ci ci ci ci ci kaw gi. Mhm. fu nekk dafa war a accessible. loolu tamit dafa war a doon li nga xamante ne dañ ci war a taxaw. Mhm. Euh, bu baax waaw leneen li tamit foog naa tamit li ñu war a bàyyi xel. foog na ne important yi fu ñu leen war a mun a produce léegi ay jaa oil ak ñooñu. ñu fexe nyom tamit distribution distribution bu ñu doon def ñu jëlee lo seen loxo ñu may ñi opportunité ñu mun a tasaare ñoom tamit ñu continuer seen liggéey foog naa nit ñi tamit loolu la ñu tamit sóoraale tamit bu bahaba a pour because produce ba pare nga nekk distributor nga mel ni da ngay da ngay da ngay monopolise affaire yi def. Mm. loolu tamit la war nañ ko di jaay sam di jaay par exactly exactly loolu tamit. so yooyu itam war nañ koo bàyyi xel ñu jaajëfal ko su ma tooma ñu ngi ko géej nañ koo dégg ñu ngi ko mhm. néy bu baax wax na lu am solo waaye comme comme gis nga lu mu laaj dafa bëri wara nga baal ma balaa ñoo ngaa continuer ok ñu jël Mr Mr Ndiaye from Latrikunda hello salaamaaleykum hello salaamaaleykum waaleykum salaam ok a bokk ci programme bi thank you ñu bu baax jaara jaara ma ne ñun suñ semaine bi fii affaire yi waxi bi ah ñun ñun Gambia du mos a jël fii semaine yóbbu ko Sénégal. oh hello. dafa mel ni dem na de. yes yes go ahead ñu ngi lay déglu. ma ne ñun suñu semaine fii Gambie du mos a gënal fii dem Sénégal. waaw la moo tax semaine jóge Sénégal fii on est ñëw fii muy isi problème ñun da war a protect suñu own compagnie nekk suñu own dëkk suñu dëkk dañoo war a protect suñu own compagnie si so suñu am demoon a protect. three company mu ngi Gambia so ñëpp mën nañoo am suufee yëpp noonu laaj doy béykat xam naa am suufee ñaar di dox. Hmm, hmm, ok loolu moo war a focus. Hmm. ñu war a ñu war a ñu war a projet suñ citizens si. oh all right uh, Mr Mr Musa Njie mu ngi ñëw calling from Latrikunda Euh, waaw ñu ngi ko gërëm euh, ci ci ci moom tamit gis-gisam hmm, wax na lu am solo. mooy tamit foog ñu dooleel lañ moom waaye. dooleel bi tamit euh, foog naa lu ñu ci war a mun a boole rek. mooy décentralisation bi waaw pour bu bu métti si ñun. waaw problème bi mooy ne comme que Gambien si yëpp ànd nañ si. Mm-hmm. ñu nga buñ sañoon duñ jéggaani dara. waaw buñ sañoon maalo bi sax suñ bës lay doon. ah kay sañoon ay carton yi ganaar duñ ko fi gis. dañu yar ganaar ban exemple bi tey. government si toogoon a taxee na ba ban na ganaar xam nga def na lu baax waaye dafay métti because prepare wut ko balaa nga koy baan dina la jël some years nga indi ay projet ut ñu ko yar ba pare sooga nag nga doog a baan soo dafa mel ni dogal bii tam liñ si waroon a waajal moo amut kenn benn gambien ŋàññut ko waaye amut te tey gis nga li si gaa yokk yokku call from mit na bàyyi ak su ma toog xanaa Gambie moom Greater Banjul area rek la. ñu ñoo war a dem jënd ciment xanaa da ngaa jógee parce que ñoo jënd ciment si Jaoel su fekkee yaa ngee tabax sa benn rumbal nag fu fas yi nekk wala fu xar yi nekk yow fu fay jëlee ciment boobu. Hmm. de ñooñu dañ ne war a bàyyi xel. Hmm. si bu ñëw tëral. waaye waaye léegi est-ce que loolu tamit du du du du ñeneen exemple xëy na businessman yi. mooy ñuy jënd jaayaat ñoom ñoo war a am am ay store ay farafeñe ay basse ay bansan ay kuntawru ñu ñëw ñu jëndee si jaaoyal di yóbbu jaaoyal li ñu doon def ñëw di eb di jaayaat ñu war a ko stop loolu nag buñ si bàyyiwut xel parce que ñoom ñoo nekkal ñu ngi produce ay non loolu nag loolu tam buñ ko bàyyiwut xel ñooñu dinañ jënd si saako ciment almost four hundred something mun na leen ko yeggee suñ ko bàyyiwut xel moo tax loolu yëpp bu tëralin bi la benn ñom dañ am dañ am sen price bi nga xamanteni ne loolu lañu leen di jaay ñu jaay di jëndat bu ci nga xamanteni ne dañ koy wara bay xel suñ ko bàyyiwul xel ñom itam ñu dem nga jënd sa ko ciment tri lu ko gaay di waxe tri something nga dem fa la jënd ko fo something am jaaduwut te dañ ko wara a saytu te dañ ko wara a saytu jaaduwut moo tax loolu yëpp nag nguur moo ko war te opportunité bi mm, mm. si dis isu ni ñi réglé ko si na leen na nu muntu démé bu aggé base nangam la fay jar bala ñu jël sin la scola bi euh, ñoo lé from assalamu euh, alaykum waaleykum salaam salaamaaleykum. waaleykum salaam Mr Ndiaye. Mr Diallo Amadou. naam jërëjëf. ma déggoon afta mu dog maa doon affaire yi pour ñu war a socialiser pour ñu mun a dimbale ku war a dem faji bitim réew pour su fekkee ne ñembal bi du mun a yomba pour ku nekk dem dugg si si kër ba si nit nga ne ko di bala ma lii waa suñ ko defoon ni ma la doon expliqué la leen nii. waaw waaw waaw def doon def def yomba ci ñëpp te fekkee yi ku nekk li nga cee génnee du la sonal. te ki war a am faju bi dina am xaalis mu dem mu faju mooy su nekkee ku nekk mun ngaa suñ la jëndee crédit ñu génne fa tuuti la si rek mhm. xam nga def ko budget ndeysaan ñu war a dem faju ji ñu leen koy dimbalee comme ne su nit amee ku ñu war a dimbalee rek du nekk always waaye su fekkee dafa feeñ rek mhm. su feeñee rek ñu ñu ko boromam bi seen one day or two days nga gis moom mu mun a am lu moo dem faju ji mhm. ñaar bi mooy affaire ciment bi tamit comme ni lu ko lu ko jàng waxee loolu la gars yi waroon a def xam boo gis dafa am yoon. Mhm. because nit ki uh, doo dugal sa xaalis si dara ba pare nga comme ni yow léegi nii ni nga nekkee foofu léegi nga dem invest bala ngaa ñëw rek ñu ne la marché bi dafa close xam nga loolu amul dafa métti de. Mhm, mhm, loolu dafa métti trop. definitely because investment so lu ñu waroon a def mooy dañu waroon a xaar gars yi jaay seen stock bi ba pare suñ ko ñu jox la maybe time maybe three months four months five months ñu ku dem jëli bagage fu mu nekk nii ku fa dem jëli bagage léegi nga xam ne soo jaayut tamit yow yaa ko defal sa booba. ñu fu mu nekk dañ bëgg a close market bi léegi dañ bëgg a ngeen a jëlee Gambia di ko jaayee fi nii. Hmm. waaye soo demee nii ni ñu koy defee jékki-jékki rek ñu tëj marché bi nii loolu dina affecté ñu bëri te xam nga ñu bëri tamit si loolu lañ di dunda tamit. Hmm. te loolu dafa man damaa ñaan gouvernement bi mu seet si loolu tamit mu dimbale gars yi. man de dëkk ba jekkati si mende waaye dafa daw yaram pour di dem jëli bagage am ba ñëw rek yow ñu ne ko market dafa close xam nga loolu dafa métti te yow foofu rek nga ko mën a jaay seconde li tamit dama bëgg tamit government tamit mu seet tamit ñoom revenu bu ñu am si ah, si boota bi hmm. ak revenu bu leen jaawel di leen fay fii ñu seet ko ñu compare ko ñu seet naka la hmm. Hmm. jërëjëf parce que su nekkee moto bu nekk mu ngay fay thirty thousand mais bi thirty loolu ñaata la jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci euh, ci call bi euh, ni nga ko waxee loolu moom war nañ koo sooraale bu baax ba euh, di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne jaar nañ ci line bi su ko defee comme tamit ñu wax ñuy seetaan ni ngeen ko gisee noonu seen li live image yi nga xamante ne ci press conference bi nga xamante ne ministry of information dañ ko dee amal ministre of course docteur Ismaïla Cissé moom ngeen di gis noonu gars yi ngay waaj pour ñëw jàkkaarloo ak taskari xibaar yi comme ni ñu koy defee euh, toujours te Africa daf leen koy indi live ngeen mun a seetaan lan lañ cee waxtaanee loolu mun naa euh, start euh, any moment from now si tàmbale rek incha allah na ngeen ko mun a seetaan live ci télé bi ngeen xaar ko ci kanam tuuti gaay ñëw indi ci tolluwaay nguur gi taxawaay ak yooyu su ko defee quickly rek ñu dem ci final segment ci programme bi ak li gën a fes ci yéene kaay comme ni ñu koy defee indi ci. and ah, ak euh, Mouhamed Mbaye Garme su ko defee euh, ñu dem straight ci moom Garme euh, ñu nuyu la rek bàyyi la nga doxal incha allah gannaaw bi nga nuyu ak gars maa ngi lay fay am du nuyu ñuy programme bi ñu tënk li gën a fës ci yéen rek su ko defee.